Eh. waaw mais kii du sama copain ah, gis nga maa ngi nii de frère. waaw frère gëj a gisee gën. waaw mais li nga ma gëj a gis nag ndax temps yëpp dama xawoon a feebar frère. tawat wallaahi man hémorroïde moo ma sonal dem ba indil ma néew kàttan gën. saa noo ko feebar mais feeñ sa jëmm sax saa fu nekk wër naa fa pour faju mais gisuma kenn ku ma mën a taxaleeg feebar boobu. non frère mais xam nga seex Bara Ndiaye borom def gis. borom def gis. waaw waaw dégg naa turam nag. dégg turam dégg naa turam. mais xaw naa kaa recherché mais mënu ma xam exact fan la nekk. mais yow kanaan nekkoo Mbour daal. ok ah, maa ngi Mbour mais Cheikh Bara Ndiaye am na Mbour léegi représentant bu ko nekkal Mbour ku ñuy wax Abotaal. ah bon waaw. Uh-huh. bu fekkente ni feebar bu lay dal. bii bi métti. ballottement faiblesse sexuelle. tension bu dee da nga am euh, néew kattan. bu fekkee sa biir day faral di ngay am lu ñuy wax ballottement bépp feebar boo xam ne mu ngi si yow boo ñëwee seet si Abo Tall mi ngi représentant Cheikh Bara Ndiaye fii soo demee dina la tàqale jàngoro bi yëpp yaa ngi gis terrasse bi ngay seen terrasse ne waaw fa nekk mais frère loolu amul toogaay de. ah tu ma ñibbi sunu kër da ngay ànd man yóbbu ma. mais dama nekkoon si yoon gaañ. non kaay ñu def frère. wallaay man loolu. kaay faju kaay non fa kaay faju boo ko tag dara. non wér gi yoon saa lu waay a gis ndeysaan. yaa ko bamba la jox si masoon nga ne xar baax ba ne buum dellu laa sa dëkkër bu duma ñoo sopp ñun sëriñ ba non ku ma yàgg woon wajaay soo waroon naa la kenn ci Cheikh Bara Ndiaye doon def kontaan naa li des mooy yegg mu ngi nii est-ce que salaamaaleykum. waaleykum salaam. lii ziar baax sëñ bi. alhamdulilah am na jàmm. alhamdulilah. am na abootaan bi fi nekkal Cheikh Bara Ndiaye borom def. a ah, ñu ngi lay ziar bu ah, sama waa ji acca mu ngi nii ab sëñ Abo ngi nii. Ah, ñu ngi lay ziar sama ngi nii. ah sama waa ji fee léegi mu ne ma fan yëpp dafa xawoon tawat. baar kii moom loolu doon métti euh, man dama amoon problème faiblesse. Mhm. et tout en même temps dama amoon hémorroïde. affaire ba jë jural ma loo xamante ni sa waay manuma laa bopp bi ak yan bi sax. waaw mu nekk loo xamante ni yàgg na sama yaram bi. Mhm. wóor naa fu ne pour mhm. mën a faju mais gisuma ku ma takkalee sama jàngoro jooju ci laa gisante ak moom mën a mën a dem. Hmm. waaw man nag sant naa yàlla ginnaaw yegg si naa fii jàkkaarloo ak yow. Hmm. jàpp naa ne sama tawat dina la. fer hmm. xeetu jàngoro ngeen di faj yéen. waaw comme moom li ko dal. muy hémorroïde. di estomac. di ndoxum cité. néew kàttan. tension. ba ci jabet. prostate. yoo xam ne seen saw day xaajali ko saw muy metti ak yooyu yëpp dañ ko saafara. xam nga hémorroïde léeg day def ba jural nit ki néew kàttan. bu boobaa tamit ñun dañuy saafara hémorroïde bi mhm. saafara naa ñooy kàttan bi mhm. muy ndoxum ci li di estomac mhm. ak yëpp yoo xam ne rek Cheikh Bara Ndiaye dégg ngeen ko mu koy wax ci télé bi dañ koy saafara fii ah kon nag mbokki Mbour mbokki Sénégal mbokki Saly mbokki Petit Côte képp koo xamante yittewoo nga Cheikh baara Ndiaye boroom def gis te mun mënoo koo jot jaru ngay dem Ndakaaru Ndiaye jaru ngay dem fen ñëwal fii Mbour quartier Médine boo ñëwee ci côté mécanicien yi côté Auchan bi di ko gis Abotal mooy représentant bi boo ñëwee sa bépp jàngoro nag boo ñëwee fii nag incha allahu rabbi nee la dina la ko faj yow nag jàppal ne sa jàngoro faju na toogal. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm bu baax amaat mbégte teewaat fii ci ndimbalu sunu borom ak kattanam di ñaanal ñëpp jàmm. di sàkku ñëpp ñaanal ñu jàmm namoon leen bu baax nag eh, ndax gëj naa dajeeg Cheikh Bara ci def gis waaye nag eh, du jikko jamono la rek jamono moo xaw xat kon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp eh, tamit di leen gërëmtal ci abonnement yi ni muy yokkee di leen jaajëfal bu baax di nuyu Cheikh Bara Ndiaye Cheikh Bara ñu ngi lay nuyu bu baax namoon la bu baax nag ah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi lay nuyu Seydina Omar Gueye di nuyu waa def gis TV yëpp. mbooleem abonné yi nekk ci def Defkis TV cent onze mille lañ toll euh, mooy kaafi mooy yaa kaafi yi euh, keroog maa ngi koy wax ca meeting ba ma ne kaaf yi boo ko boo cent cent onze hmm. boo ko multiplier par trois mooy trois cent trente trois hmm. waaw mooy trois cent trente trois xam nga cent onze dafa am doole man de sama numéro kër cent waaw kon yéen du ngeen gis lu ngeen ragal incha allah lépp lépp lu dajeeg 111 yàllaa koy aar. Eh. gis nga once boo ci tegaatee benn 1 mooy def 1111. 1111. Mhm. Mhm. mooy par exemple ñeenti 1. Mhm. boo xoolee Serigne Touba bi mu demee ci géej gi bay ñibbisi. bis bi mu ñibbisi. la mois la. la 11 11 mois xam nga loolu lan lay tollal. Mm. mooy laa taxaf. mooy la taqaf mooy bul ragal mhm. waaw yàlla nag bis yëpp a ngi fi woon mhm. mu bàyyi ba onze onzième mois mu daan ne sëñ Tuubaa ñëwal ñibbisi mhm. nga xam ne kon def ko wan ko laa taxaf mooy li nekk ci sa kanam amatoo looy ragal yeneen yàlla Muhammad daj na lu ne waaye bi mu trois cent treize personnes ci chiffre ba tey ci la ko yàlla ne ko xeexal dégg nga kon mm, ñun ñi ngi ci cent onze kon maa ngi leen di ñaan cent onze yëpp nag yàlla defal leen mucc mhm. ak a aaral leen boppam comme nim lim ni ko diggee ci kaaf yi mhm. di leen wax euh, ngeen doole abonné waat bu baax a baax a baax mhm. tey xaar émission yi incha allah ñëwaat nañ fin d'année bi dafa xawoon a xat ci ñun euh, waaye ñëwaat nañ daal incha allah waaw ah, kon Cheikh Bara balaa ñuy dugg ci waxtaan rek ma jaale nag sama waa koñ euh, sant yàlla ginnaaw final nawetaan bi mu doon dafa am benn xale bu mu fa gaañoon policier yee ko laaloon finalement dafa mujje desede du ñàkk yoon dina ci def liggéeyam mu tudd Talla Kandji doomu Ibrahima Kandji ñi hmm. masawu ñëpp nag di wax takk der yi tamit mënuñu dugg ci koñ gaañ fa nit faatu fa nga wër koñ bi tamit wër di jàpp nit ñi parce que ay xaaj guddi la ñuy dugg ci koñ bi di ramasse booy di yóbbu te tamit tegul ci yoon kon euh, mi ngi noonu kon ñu ngi jàlle ñëpp di masawu ñëpp Cheikh Bara ñu sóobu ci waxtaan bi ak euh, Def Gis euh, TV mais aussi tamit euh, ñëw tey jii ci liggéey bi tout d'abord balaa ñëw ci actualité bi Cheikh Bara fan lañ toll ak liggéey beeg càng comme ay nit dañuy déplacé wu dañuy ñëw di ñu seet si mhm. te fan yii yëpp ñu ngi may dégg may wax ci bu ñu xëyee au ñu liggéey suba si mais dañuy toog ba dañuy nekk daal ci suñu activité wala boog mën a topp guddi gi lépp def li ñu war a def mhm. ba tëdd jot ñu tëdd ba 13 heures daal incha allah taal daal la ñuy tàmbali nag ubbi tàmbali li waaw loolu day tax dinañ gën a jël temps euh, te it dinañ gën a am temps ci guddi pour mën a liggéey li ñu war a liggéey. Mm-hmm. Euh, dinañ gën am temps wu nelaw tamit daal. fajaru liggéey tamit day metti day metti lool sax dafa metti day dem ba nga xam ne nit sax damay wax ak man sax ma xuloo ak mm-hmm. wala euh, yu bari daal yoo xam ne da ko daan seetlu ak ñàkk a yu jege socc di socc fekk yooyu yëpp ñàkk a nelaw nelaw yi ak reposé. Mm-hmm. te adduna moom comme loo xam ne liñ naan ci budul rees mat réyal wala sàcc budul raw jël te yàqi nelaw comme ñun liggéey bi ci lañ ñaan yàllaa nekk ba faatu moom Euh, nañ ci nekk en lees daal te jàpp naa ne loolu moo gën ci moo gën ci gan ñi moo ñii ñëw mm-hmm. moo gën ci euh, ñi nga xam ne dañuy dañuy dañuy ci ñun ñuy faj si parce que da ngay gën a am temps bu bari loolu laa doon yëgle mm-hmm. bi ci des mooy am nañ waxoon naa ci jamono yi am nañ boutique Mbour mm-hmm. ci Auchan bi numéro am dina nekk foofu am nañ boutique euh, Thiès Kër Mbay Diouf boo fa taxawee rek boo téléphoné ci numéro Thiès bi noonu dinañ ñëw jàpp naa boo teewlu woon numéro yi sax ma joxe ko. Uh-huh. Uh, waaw dinañ ko joxe uh, danañ ko uh-huh. joxe balaa maa jeexal. am nañ boutique tamit Touba am nañ boutique Touba. Uh, waaw am nañ boutique Touba. Uh-huh. moom tamit def ko sëñ Bass Abdou mais li ci nekk kii boo gis sama indiwaat ci boutique yi mooy dañu am boutique bu bees Casamance. waaw Casamance foofa la boutique bu bees bi nekk. dinañ wax fan la nekk. ak euh, numéro yi bi ciy jëm. Mhm. ak boo xam ne euh, ko soxla foofu lay jëm. Mhm. waaw nañ ko nag ba noppi. xëy na mhm. dafa am ay réglage yu mujj rek yu ñuy def. daal di koy daal di koy yëgle nag. waaw fan la fan la nekk parce que jël nañ jël def defar nañ euh, ci localité bi mu nekk. ak réglage yëpp daal. def nañ ko ba pare incha allahu taala kon loolu laa doon annoncé ñëpp pour ñu yëg ne. Eh, waa Casamance daal léegi eh, ñoom itam eh, boole nañ leen ci liggéey bi. Mhm. ku bëgg incha allahu taala xam naa suñu yeneen émission yi di ñëw ci Walfadjri Takusoo wala ci fii ci Def Gis TV rek. Mhm. di ngeen gis numéro bi incha allah. incha allah bu ñuy jeexal sax bu jàppandee incha allah am na ñoo xam ne mënuñu liir. Mm. ñoom nga wax ñu dégg ci li gën a jàpp. waaw loolu aussi dinañ ci dikk bu ñuy jeexal. léegi nag Cheikh Bara Ndiaye di fàttali ni rek tamit. gën cee soobu lu mooy euh, garab yi ñuy fajoo lu jëm ci wàllu hémorroïde teg ndox mi si teg ñoomin seen am na ci yeneen yoo xam ne moom mbiri ñaan la ak ñoomin seen bëgg naa nga dellu si rek waaw ni defaat am na ci loo xam ne maa ngi ko doon a fàtte merci mooy euh, mardi tamit dañ ko daan liggéey asalem école ma jëy sàll mhm. par mardi parce que ñun fii lundi rek lañ fi daan xëy ak vendredi mhm. léegi nag euh, nit sangaa yi njare yi ak ubbiku ak bàyyi rek wërsëg daf leen a soxal lool mhm. te bu dañ lay fekk benn tali Euh, ne la ñun sangoo lañ bëgg léegi nag doo mën a foofu jekkuwul foofu ba ma fay dëkk ak tey ëpp na fukki at ak man na ko waaw dafay dafa dafa nekkoon appartement rek bu yam boo xam ne foofu laa nekkoon mhm. dem na ba yàlla dogal na am naa sama kër maa ngi fi waaye nag foofu mënuma koo bàyyi ndax sama dama fa yàgg benn tali moom foofu laa xam kóllëre ginnaaw lay féet te foofu moom wax dëgg yàlla ku ma xamit foofu nga ma xamee mhm. su ma lépp foofu la nekk moo tax mënuma bàyyi il faut ma fay mhm. mais léegi mardi Euh, pour nit ñi nga xam ne dañuy bëgg ñoom ku sangat seen yaram ci ubbiku ci bayre ci wërsëg ak lu doxal seen i mbir mm-hmm. ñooñu euh, il faut nga nga nga nga dajale leen léegi nag pour ñu dajale leen ñu ñoom ñu noppalu ñu noppalu ñun tamit dañ koy def mardi mm-hmm. mardi boo wootee rek nga daal di ñëw léegi nag li ci spécial mooy euh, boo ñëwee dañ lay defaral nga seet seet mm-hmm. seet lañ lay defal wax la sarax yi ngay def bindal la ko nga mën koo def xam yow la kan bu paree ñu defaral la sangat euh, ca juróom-ñaari cangati njare yi bu fekkee cangatul bayre cangatu ubbeeku cangatu wërsëg kaaraange yooyu yëpp dañ la koy defaral ba mu yegg jox la yi ñu lay jox nga yóbbaale bu fekkee am na rendez-vous ñu wax la bu amul rendez-vous nga dem mais en tout cas moom man am na loo xam ne mënatuma ko wax sax di publicité moom samay cangat moom wax dëgg yàlla kooku maanaam ñëw ku ñëw ci kër gi daal doo ko rëccu mhm. waaw ubbi ko rek am bayree mhm. waaw coow li topp la nit ñi nit ñi ku la gis bëgg la mhm. loolu moom incha allahu taala ak booy jaay mu jar ak boo bëggee jëkkër rek boo bëggee daal neex doomu aadama yi ak euh, say mbir yëpp yàlla def ci jàmm muy dox te nga mucc mhm. boo ñëwee incha allah yàlla dana la ci dana dana sa xol dana sedd ah, waaw seet gi tamit mhm. dama koy dama koy wax man xam nga seet ñu bari dañuy dañuy wax naan damay seet damay seet seet ni seet naa mooy meer ba nekk fee yaa ngi ni ubbu nga tëju nga Euh, seet man ni ma koy defee boo ñëwee ba ma seetal la rek mhm. di nga di nga xam man nan laay seete mhm. parce que seet bi may seet mën naa laa seetal ba pare du am ay liggéey nañ laag liggéey yuñ laak maanaam man ci ci ci xam-xam bi ñuy liggéeyee daal mhm. surtout bi may gën jëfandikoo ci mardi maanaam bi ma paree pour jëfandikoo ko ci mardi bi parce que ñaar rek lañ ci jëfandikoo. lañ ndax nit ñi dañu bari. taman seetu ramlu nii tomb muy tomb nii góotal layaani waa gëf gëbët kët samra bëdd na seefar man loolu laa xam loolu la sama baay loolu laa doon ci sama baay mhm. waaye nag ci samay xam-xam ak samay gëstu dama dem ba am yeneen seet yoo xam ñooy gën a gaaw te ñoo gën a <laughs> ñoo gën a mën a kii nit mhm. fi bu la neexee euh, nga jël téeméeri nit mhm. téeméeri nit wala boog yow man ngaa dem seen kër nga sélectionné ay nit ñoo xam ne man xawuma leen yaa ngi dégg te gis nga bu fekkoonte ne am nañ direct dañ koy def loo xam dañuy ubbi ligne bi maanaam man man ngaa yow ñëw man xaw ma la nga jeex jox ma ne ma diw maanaam mi ngi juddu bu la neexee da nga yem ci at bi mu juddu rek diw dafa juddu 2017 diw dafa juddu 92 diw dafa juddu 52 soo ma joxee ki ki juddu 52 wax ma ko am na nu muy demee dinaa la laaj ci ban ci digg mois bi maanaam ba par exemple ci début année bi wala ci kaw année bi su fekkee am na benn question bu ma la loolu la man dinaa la décriral kooku Mm-hmm. yan xeeti solu est ce que bopp bi dafa am karaw wala amul karaw mm-hmm. est ce que day mer est que du mer est ce que am na xaalis est que dina ko am est que dina dina xuloo est ce que nii mooy fa lii la ëpp lu lépp lu nekk ci moom mm-hmm. mën naa la koo décriral te doo ma wax sexe bi waaw ah. day ànd ak ay sarax ak yooyu non waaw dafay loolu kay moo gën a dee danaa la wax kay lépp lu muy saraxe ak foofu nag la nit a taxaw daan ne diw mi bu rendi wala diw mi bu mu togg di sarxe wala diw mi luy luy luy luy meññ lay sarxe mm-hmm. maanaam day watta pom sarxe sulli gerte maanaam gerte sarxe mm-hmm. ñebbe sarxe am na ñoo xam ne loolu rek mooy dox ci ñoom am na ñoo xam ne ndo euh, am na ñoo xam ne mala yu lewet ay ginaar ay lëg ay ay naat dégg nga mm-hmm. yooyu la ñuy sarxe am na ñoo xam ne mala yu wex maanaam bu ndawal gu ñor gu ñorut lañuy sarxe dégg nga wala ñu wut ay ay ay ay ay ay ay ndawal gu ñurut ñu ci ëpp ñuy saraxe saraxe yu mel noonu ndawal gu ñurut wala sax bu ñuy saraxe dañuy jël sarax bilu ëpp jox ko mala. kon nit dafa war xam saraxam. oui nit ku nekk dafa war a xam saraxam nit ku nekk dafa am lu ñuy wax tabiya barki démb rek pourtant ci télé bi maa ngi koy développé ma naan Macky Sall la ay ay ay ay ay ay zen sen sen sagittaire ak ak ki nu mu tuddati. ki nu mu tuddati tooro ay ay ay ay tooroog. ay ñoom euh, bélier yooyu mm-hmm. yëpp maanaam loolu tubaab yi ñoo la ko gën a xam fuuf boo demee ci tubaab yi xam nañ ko tubaab du takk jabar te defu ko du am doom te xoolu ko mm-hmm. man jàpp naa ne sax histoire boobu moo fi indi nit ñi di jéem a xam seen date de naissance mm-hmm. nit du boo demee ci indi yi dafay gëm mois bi mu judd tubaab dafa gëm jour bi mu judd chinois dafa gëm at mi judd mm. waaw maanaam chinois yi ñoom at bi ñu judd rek la ñuy jéem a xam parce que ñoom dañ ko dañ ko chiffré ci douze ans boo ko defee boo xamee nit ki at mi juddu dangay xam kii kan la ki shahir ak ki lan moo koy neex lan moo koy naqari lan mooy lan mooy avenir am ci lan la war a yëngatu billaahi wallaahi tey jii am na ku ma woo euh, ku jigéen jox ma lu mat juróom benni doomam ma noté ne ko léegi bul coupé ma ne ko diw diw moom xaar ko ci TikTok ak ay Facebook ak ay wanewu mu ne ma waaw ma ne ko diw mi sport parce que ci année bi mu judd laay xam ne nit ku mat lay doon day sawar ma ne ko day sport mu ne ma kii day football ma ne ko diw mii ci defaru bu dee góor sax day jekk-jekkal tem mooy góor ñi nga xam ne tem nga bett leen ñi ñi ñi ñi ñi make seen bopp waaw di lippa leef jël poudre bu ndaw sax di laal di euh, kii dum salati di def ay ay ay ay rëdd bët yeeg hmm. xeet yooyu nga gis mag moo xam ne maanaam mag lay doon maire mais day làqatu di seetaan seetaan kii seetaan mike boo moy tuul wala nga bett ko muy jouer di def nii jouer nii di jouer ci téléphone am ci nit la nekk xale bi dafa am ñoo xam duñ màgg ah, te loolu ci voilà am na ñoo xam ne dañuy làqatu nii di seetaan mike am na ñoo xam ne ay xale ndaw rek lañ mën a nekkal di fo mhm. am na xam ne dañuy toog nii yor seen téléphone di jouer loolu rek la moo leen ni neex mhm. loolu lépp nag du nit ki ci biddiw bi la am na koo xam ne beru rek mhm. dem tëdd beru moom dong isolé wu rek wu boo muy tuul kër gépp moom bu balaa am lu ko neex mu am kër gu ngand mais moom dong mu nekk ci biir tëju yor yi livre rëm wala mu nekk ci télé ah, am na ñoo xam ne dem sport def metti seen bopp am na ñoo xam ne liggéey da ngay koo xam ne day xëy liggéey wàcc jël taxi bi su xëyaatee am na ñoo xam ne boo leen xamee ba ba ba ba ba noo noppee xam ñoom foo leen fekk tani la ñuy sol ñoom liggéey rek. am na ñoo ne lu neex la mais ñooñu ay ay ay kii lañ <laughs> maanaam am na ñoo xam ne tani rek lañuy sol duñu duñu wàcc xëy liggéey mm. wàcc liggéey wàcc dem fee dang dang dang nga yërëm leen fekk ñoom loolu moo leen neex am ñoo xam ne matériel takkaayu yor portable fii yor fii yor tele maanaam am na ñoo xam matériel oto bu rafet bu ñu ko gisee seen xol bi day sedd guyi mu amoon xaalis léegi dem jëndi oto léegi mm-hmm. loolu lépp da nga yaakaar ne nit ki moo ko tey tayu ko am yoo xam ne sëy sex am ñoo xam ne fi mu ne découvrir góor wala découvrir jigéen am na jigéen ñoo xam ne tey boo ñëwoon ñu gis la yaakaar ne waroo leen nopp mën nañ fexe di la topp di la topp di nax-naxal saa boo nopp naa la rek bu ñu la xamee rek pare nañ ci yow dañuy dem wutiwaat lu bees mën nañoo sëy fukki sëy ak juróom am xam ne réew mu ñu wàcc bu ñu toogee tuuti jàll feneen am na ñoo xam ne tëdd ci néeg taal kilim ne bëggu fenn am ñoo xam ne ci violence gëdd nit dañ lay gis sax ngay laal seen dàll dañ naan ceel ba nga laal ko ñu mën laa yuuxu loolu leen neex mhm. lu bon quoi wax metti lu xat wax lu metti buñ paree réccu ko mhm. lu lépp maanaam mën naa la ko ci doomu aadama mhm. léegi nag loolu noonu loolu mooy seet mooy xam nit ki d'abord kan la dégg nga euh, barki démb am na kii maam daam daf na ma jour diw xaw ma ko de mu ne ma dafa bëgg ay bëy ay xaj yooyu mm-hmm. ma ne ko ma ne ko kooku xanaa daa juddu ci juin bi naka demal xool mu judd juin loolu li koy bëggloo jur gi am na ñoo bu ñu nekkoon nag jur jur gi da topp léegi di leen di leen jaam mm-hmm. am na ñoo xam ne mënuñoo organiser wu maanaam boo leen doon fay million mm-hmm. seen néeg ay bagage lay nekk xujur xujur yi fees del looloo leen neex am na ñoo xam ne néeg biñ nekk bant bu fa tegu woon wala ay dàll nga summi ko dinañ naxante ak yow ba jël dàll yi tegale waat ko ñëw toog am ñoo xam ne mbëkk fayu nit ñoo xam ne takk ay weer teg nga mbaxana mii nii kaalawaat ko sol luy rey-rey am loolu am ñoo xam ne lu dul di wax nit ñi leen déglu neexu leen mm-hmm. di wax rek nii yëg si piliggéey nit ñi nit ñi tamit boo nekkee ci ci biddiw boobu ñoom tamit du ñu am benn plaisir bu dul di la déglu donte xam nañ ne xamoo dara même boo doon fen ñoom dañu am ay plaisir bu déglu fen yi ñooñu ne bu ñu amee sens moo tax léegi léegi seet nag lii lay jariñ <laughs> mooy nit kooku bu amee sens Mollah bokkul ci ñooñu non man bu bu ma tuddal Mollah waaye ba jàmbur bi xola nit kooku bu amee sens xola nit kooku bu amoon sens tey ki nga xam ne moom ci ci ci biddiw boobu la nekk su amoon sens ba nekk ci mbirum star hmm? eh. day toj àdduna comme comme Michael Jackson. comme Mola rek comme comme Michael Jackson comme euh, comme ay ñoom ñoom ñoom ñoom Bob Marley. xoola comme ay Bob Marley. Hmm? Hmm? comme Mola. voilà non du ma tudd mbaa jàmbur bi waaye. non man maa ko tudd ah, jàmbur Mola. bind na testament. xoola hmm? boo gis nga ñooñu. boo amoon sensu nga nekk ci biddiw boobu. <laughs> Eh. nga day xoola da koy bëgg nag. bu nekkee ci yow il faut nga bëgg léegi nag mën nga mën nga yor biddiwu star boo xam ne danga war a siiw war a way nekk ci musique bi nga dem yor taxi di ko dawal am na ñoo xam ne ci biddiwu seere nit ki même balaa muy dugg ci dara war na xam non dama ne la tubaab bu juree doom day xam da kay xam horoscope kan la kii kan la kem jur nii kan la mhm. ak lan ban obs ban ban ban ban ban biddiw la lan la yor kan fan la jëm lan moo yomb ci moom lan moo jafe ci moom am na ñoo xam ne siiw moo leen gën a yomb ci lépp am na nit ñoo xam ne duñ sonn te foo leen fekk dañu am xaalis. Mhm. dañuy naat. am na am na ñoo xam dañuy sonn di sonn duñu am dara. Mhm. am ñoo xam ne buñ amoon milliard. Mhm. lépp matériel lañ koy jënde am ñoo xam ne bu ñu amoon milliard dajale nit ñi ñëw leen ñëw leen ñëw leen. Eh. di nga gis nit ko xam da ngay dugg biir néegam. Eh. fekk fa mii maanaam deux cent paires yi daal. ne moo ko tey. waaw am nañu <laughs> te lal ba ñuy du baax. non deux cent paires dàll foo ko fekk. nit kooku jën la. am na poisson poisson ñi judd ci poisson def leen horoscope ngeen xool ñi ñi nga xam ne ci poisson lañ judd nga xool ñaata peeru daal la ñuy denc parce que jën dafa amul tànk ñàkk bi muy yëg faible su ñàkk tànk bi loolu mooy tax da koy day yëg day yëg loolu ñi nga xam ne si horoscope ñoom ay seq lañ ganaar mm-hmm. hmm? xam nga ganaar dafa am benn euh, trône buur la quoi mm-hmm. ci ci kii buur la gis nga ñooñu. Mhm. ñooy il faut ñu teg mbaxana seen bopp wala ñu takk ay linet te foo leen fekk nag maanaam xeex moo leen gënal naanum ndox duñ bàyyi xeex nañu dem ba am quatre-vingts ans di xeex dooleentey ko su ma jëloon sama machine léegi mën naa ne la ñi juddu nangam nii la ñuy mel ñi juddu jour tel nii la ñuy mel ñi juddu mois nangam nii la ñuy mel. am na ñu nga xam ne par exemple tey gis nga calcul. maanaam weer wii ñu jëm mois de mars bii ñu jëm mhm. dañuy xam ñaata lañ ciy dépassé mënu wax a wax a wax ba 1000 francs tegu ci mhm. ñoom dañuy toujours ñoom nañ xam lan mooy dépassé lan la ñuy dépassé duñ jubóog seen soxna nan lañuy nañ xam lan la ñuy dépassé mhm. koy calculer ba teg ñooñu nag bu leen yàlla yóbbu ci mm, affaire comptabilité ay dañuy nekk nit ñu garaaw parce que loolu mooy seen nature ki yor ki yor ki yor jën bi ndox mi ah poisson kooku bu ko yàlla xiiroon ci mbooloo ah mu nekk politicien wala dara li koy ñëwal da nga politiciens yi ci des dañuy mer naan kii dafa am lu mu sangoo fekk déedéet maanaam dafa nekk ci lu biddiwam nangu. Mhm. comprendre nga la mhm. gis nga ki nga xam ne noonu la noonu la affaire bi tëddee quoi. Mhm. dafa am ñeneen ñoo xam ne ay ay kii lañ maanaam euh, seen seen biddiw ci fas la màcc. yaa ngi dégg ñooñu dañuy am doole buñ doon bëre wala ñooy football nit mënu leen a téye parce que doole fas bi la. comprendre nga am ñoo xam ne ci mooy mooy ñi ñi nga xam ne nag lañ ñooñu nangoo liggéey mais duñ am organisation nag mm-hmm. duñ fa duñ duñ fonk nit dañuy égo dañuy égoïste quoi seen mm-hmm. bopp la ñuy gën a xalaat mm-hmm. pare dañuy nangoo liggéey ba pare dañuy matériel da leen di yomb te duñ xaar dara ci kenn matériel da leen di yomb dégg nga mais nag ay xeexkat lañuy doon aussi voilà lu ñuy am rek du yomb ci ñoom lépp seen adu seen àdduna day metti nit ñi nag dañ leen di yërëm mais ñoom loolu moo leen di neex loolu mooy seen plaisir am na ñoo xam ne balaa ñoo kontaan problème yi tege ci seen kanam dara yomb ci ñoom voilà noonu laa xir lii ma la wax ni maanaam géej la xam boo xam ne du du ay mais nit ku nekk da ko war a xam boo ko xamee rek dèjà da ngay mën a xam léegi nag bu dee ñuy def horoscope ñoom fi ñu jam mooy yow lii nga mu jeex léegi nag bu fekkee da nga am xam bidiw nag da mën a xam kii ku bëgg a taal bidiwam nii nga koy defal am na ñu nga xam ne turu yàlla bii latif la bu méngoog dafa méngoog jalaaliya non non mën naa méngoog jamaaliya am na ñoo xam ne turu yàlla bi jalaal la da nga koy dafa méngoog ki nga xam ne ci naari yoog maanaam ci nga borom àdduna ju metti ci ah borom àdduna ju metti dafa am dafa sax loo xam ne moom moo méngoog moom borom àdduna ju nooy nga xam ne ñoom ci nooy tëdd lekk ah? comme ñu judd mois de juin <laughs> jëm kaw. nay nooy rek nay nooy lekk ba suur amuñu problème nag. Mhm. seen yaay rek la ñuy bëgg ak seen papa. boo ñu amee jëkkër takk seen jëkkër nag. Mhm. voilà comprendre am na ñoo xam ne tamit organisé bu amoon xew fii ne ko organisé ma ko mën nañoo jël seen million def ko ci biir xew mi. ñoom nañ ko organisé quoi bu ñu ko organisé wul baaxut dañuy lànk boo summi bu ñu ñëwoon dugg fii li ñu njëkk a def mooy jël dàll nit ñi tegalewaat ko jël xottu tàngal bee sànni jël café gi teg toog doog a toog. mooy ñi nga xam dañuy kay suba huit heures ba midi di defar seen nekk te kenn du fa dugg kat. Mm-hmm. <laughs> voilà am na xam boo duggoon sa seen néeg dañuy xëy di tas néeg bi ba mu yegg te ko danga nga leen di yërëm yow mi xamul loolu quoi. mais ñoom loolu mooy si moo leen neex. Mm-hmm. comprends nga am ñoom dañuy xëy di dox di dox di dox di dox di dox dëkk maa nga poroxaan dem naa fee dem naa fee nga muy kii ndeysaan dafa yor ay rab rek yorul rab. Mm-hmm. nag foofu ñun dañuy dépassé waat horoscope bi. nga ñëwaat nag mën a xam kii lii mooy saraxam kii lii mooy mbiram. maanaam sarax bi mooy li teg léeg-léeg nga jékki-jékki dajeeg koo xam ne. maanaam am na booy buñ ma wax fan yële na ma day football magam woo ma ne ma day football ma ne ko wax ma lu ma joxuma date de naissance ma xool ko rek ma ne ko sa booy bi dal na ci de kii kii dana yegg fu kawe kawe ko parce que damaa gis ne kii li mbooleem yi ko yi ko neex ah hmm. mooy li muy def da gis koo xam ne star la war doon àdduna xam ko moo dem moo dem par exemple. Euh, nekk ci benn benn benn école di jàngale ñu koy fay quatre-vingt mille francs mu toog foofu. alors loolu du yëfam bu ko bàyyi woon dem dem tijji benn TikTok nii maanaam ci lay juddi buntam tàkk. waaw faaw am na tukki moo leen may. am na ñoo xam ne buñ ñi nga xam ne maanaam ji koy seen seen seen kii kii bëy la. Mhm. Hmm, ñooñu dañuy fidèle mais duñ toog. boo leen boo leen takkoon jabar tamit da leen di mere rek buñ dëkk ak dëkk réew ak réew buñ ñëwoon ba ñëw ba tey mu génn ñu ngi ci kër gële mais duñ toog. mais benn foor benn foor la ñu am mais buñ xasee ba téye nit duñ ko bàyyi dañuy fidèle ak nit comprendre nga mhm. maanaam yooyu noonu la demee a léegi ki nga xam ne maanaam biddiwam nekkul ci nekkul ci nekkul ci ñu koy fay weer dafa war a nekk ci bunt am ñoo xam bu nekkoon ci buntu milliard rek am milliar mm. mais kooko boo jëlee ab taxi di ko dawal doo am milliard di nga ne taximaan yi nag mm. ba jaaxal leen mais foofu nga yem maanaam xeet googu dañoo war di business dañoo war di dem business mhm. wala ñu tijj entreprise di gagné ay marché wala yooyu. Mhm. ñu dem fu kawe am ñoo xam ne rassembler doomu aadama yi suñ ko defoon dem fu kawe mais ñoom léegi ñi ngi ci benn euh, benn benn benn taabalu tëyër toog di ñëw ñu leen di fay weer cent mille francs ñu defee ne ñoo toj mboy am ñoo xam ne ik mooy ñu ma lay wax naa la expliquer wax ñooñu bu ñu wayul dem defi journalisme moo leen yóbbu fu kawe. Mhm. affaire bi noonu la demee. léegi nag booy seetal nit du ay da ngaa a xam lu yàlla dogal subaak. wala nga koy boole ay mbokkam ak démb. fekk ñi ñi toog fekk nañ ñi ko fekk mën na fukki nit am na ko nga xam ibaadu la dama ko ne fekk may kii mu ne ma non yow doo ma xool da ma war a xoolal li ngay wax dafa garaaw mane ko waxal ma ne ma nii non ba mu yàgg ma ne ma non yow man ibaadu laa bu ma seetloo dafa xaraam ma ne ko xaraamul li may seet li ma lay wax ci yow yàlla da koo def ba pare te xamoo ko ci sa bopp mhm. da yàlla xamal na la li mu ne ma déedéet mhm. ma ne ko léegi wax ma sa rakk bu góor ba nekk seen dëkk wala sa bu jigéen mu ne ma loolu mën naa ma ne ko wax ma mu ne ma sama rakk bu góor euh, kii la judd année tel la judd ma ne ko nii la mel nii la mel nii la mel lii lay wax lii lay wax lii lay def lii lay def boo ko defee lii mu mer boo ko defee lii mu kii su bàyyi woon nangam def nangam daa jékki-jékki ne ma i waaye yow lii man man léegi nangam laa judd bi ma ko waxee ma xool bi waa ji ak ak rakk ji ñu bokk benn biddiw ma ne ko yéen ñaar da ngeen di làqatu di jëw waa kër gi yéen ñaar dong yéen a yéen ma xii mais <laughs> parce que ñoom ñaar ñoo bokk diw ñoom ñaar kenn ku nekk boo gisee sa moroom da ngay kontaan comprendre nga mm-hmm. noonu la demee maire bi ma lay wax nii tey ci suba bi ma ko waxee jox ma lu ëpp ay cinq doom bi ma waxee par dana ma yow mais kaay ma ko parce que dama ko ne kii am na ci kii nga kii nii mu ne ma waa ak papaam ñoo bokk benn diw kii ak papaam dong ñoo déggoo ci biir kër gi yeneen ñi ci des yëpp da ngeen maslaa yow diw nga déggool diw da leen a të day dem mu ne ma mais lii ku la ko wax mu ne ma li nga def nii du seet. maanaam lii léegi. mu ne ma yow yow kan moo la wax sama njaboot ko ak sama biir kër parce que li nga def nii. maanaam lii du ay seet daal. maanaam lii ma ne ko pourtant seet la. maanaam li nga wax nii léegi ku ko soxla. bu ñu mën ci soo ma wooyee téléphone. Mhm. soo wootee ci Cheikh Touré. Mhm. wax ko sëñ bi dama bëgg mu xoolal ma. xam naa nag su ma waxee dëgg nag mbir yi ni mu tëddee ci man ak nit ñi fii ñëw jot ma yombatul waaye boo jaaree ci Cheikh Touré. Mhm. mu te bañ a yàkkamti ba nga ñëw mu jox ma numéro bi mhm. mu jox ma mu jox ma téléphone man boo ma buñ buñ déggante man a matul une minute soo ma waxee sa at rek maanaam trente secondes rek dama lay répondre parce que lu ma mokkal la sama sama bopp mhm. trente secondes wala sa date danaa la laajal question benn question wala ñaari question ci sa date de naissance mhm. wala dara bu fekkee exactement naxoo ma ci ci sa bis bi nga judd waxuma nag ku ñëw ne judd ju judd judd mille neuf cent ñaan ma mille huit cent laa judd loolu moom xaw wax mën na maa nekk di wax ci ku judd 1800 fekk waxuma ak yow. mais naxu la boppam mais soo ma joxee date exacte exacte bi nga xam ne wóor na la yow la yow la lii sa date la. Hmm. maanaam ma wax la loo xam ne matul deux minutes loo xam ne mën na laa jariñ ci sa adduna ba ba ngay faatu. maanaam ba ba ngay faatu da ngay xam fi ngay teg sa tànk. Hmm. comprendre nga. loolu nag dama koy wax nii pour nit ñi comprendre que ne léeg-léeg sax dañu war a ñëwaat ci yi. incha mooy coow lii dafa bari yow dangaa lii di laa di di làmbatu nit di peese loolu du xam-xam. Hmm. xam-xam gën naa gën naa jege loolu quoi nit ki boo ko waxee ba pare dafay xam voilà nit ñi nga ñi nga xam ne seen loxo yi nii day saq karaw ñi nga xam ne ñii foo leen fekk ay rasta wat ñuy bi nii nit ñu mën a xaritoo duñ bàyyi xarit ah, am na jigéen ñoo xam ne dañuy infidèle parce que ñoom sexe rek bu waxtaanu sexe sax buñ ko amul duñ am lu leen neex mm-hmm. am góor ñoo xam ne am nañ euh, jigéen ñoo xam ne pour nga sëy ak ñoom moom dañuy seexluwaate boobu baax waaw non duñ duñ mooy yàlla mais seen jëkkër sax pour mu jot ci ñoom day jafe. mais foo leen fekk nag ñu ngi yegg silvissé goo xam ne da leen di doyaat da lay doyaat quoi nañ xëy suba raxas la pompe def cuuraay mais bëgguñu sexe ak góor. oto dawal la Cheikh Bara. non mais du ku nekk ni la yàlla bindee. am na góor ñoo xam ne am Amar Gueye am na góor ñoo xam ne. boo jékki-jékki woon bindal leen décret na leen may naa leen moitié femme yi nekk Sénégal mm. lu tee ñi leen di bàyyi femme yooyu mm. di waraat kuñ moomut ci yàlla ci yàllaa ko def <laughs> ci ñoom la am na ñoo xam ne buñ amee jabar yem ci seen jabar mm-hmm. buñ amul jabar muñ am ñoo xam ne bu ñu amul jabar mën nañoo def liñ def mais bu ñu amee jabar mën nañ cee yem mm-hmm. kenn loolu gis nga nit yàlla dafa dogal lu garaaw ci doomu aadama mooy nit ñëpp biddiw moo leen déterminé biddiw yàllaa ko déterminé macha allah noonu la noonu la affaire yi demee. waaw ah, kon mi mi ngi noonu ah. Mm-hmm. kon euh, léegi nag mën na dugg ci actualité bi ah. mm-hmm. waaw euh, parce que lii amoon na solo.